mais xam nga li bizarre ci affaire bi euh, alors que man euh, ci ni ma doon gisee yi xalifa mooy genre pàpp la njaboot la euh, c'est c'est vrai que Khalifa a laissé passer beaucoup de choses et à l'époque les gens ne comprenaient pas d'ailleurs léthargie bi Khalifa doon wala le manque de réaction ma dal la ma la ma la foofu waaw bi Khalifa dafa rey liste nationale Yewwi Askan bi waa taxaw dañ mer waaw parce que bariwul leen ci. sur les vingt premiers on n'était que euh, ak Batou Mbaye. Pastef am na ci plus de. Saliou Sarr neuf man maay dix-neuvième. waaw kon nag ma jàll sax bu bu bu ma jàll. alors que xam nga ne yow taxaw yow askan bi Pastef la Sénégal ñëpp yeey. waaw c'est c'est vrai que mais xam ma jaaxal. dafa mel ni a non non xaaral xaaral ma dama dama lay dëggal xam nga ñun Sénégal dañu war a nangu justice ku nekk nga dëggal ko fu dëkk taxaw senegal dafa sonn ci coalition bi pour mu taxaw déjà Khalifa a fait le tour de tous les leaders est-ce que xam nga am na ay leaders yoo xamante ne xamante ñu woon sax daaw jox boo wax na seen biir moo leen fédéré. mais mais mais, mais mais justement loolu laa non may ma yow tamit yaa li nga li nga ñëw daa bëri <laughs> may ma tuuti justement euh, on a vu un Khalifa Sall avec son expérience politique mu nekk ci ginnaaw sax nangu ay ces jeunes là nekk ci kanam. on a vu un Khalifa Sall avaler des couleuvres. on a par moment conférence de presse sax Ousmane ko wax ba dérapé ba wax lu mu warul wax te Khalifa ngi toog waxul dara bu ñuy bu journaliste yi jéem a wax sax du ko du ko nangu mais xam lu ma jaaxal euh, aujourd'hui dafa mel ni Khalifa Sall était l'élément qui gênait à Yewwi euh, Bougane ba mu génnee euh, ba mu ñàkku ba mu bokkulee Yewwi dafa incriminé Khalifa Khalifa Sall. incriminer les pratiques de de Khalifa Sall ku génne ah. Bougane. ku génne Bougane. xam nga ku génne Bougane Ahmed Aïdara. nu mu ko génne. Ahmed Aïdara ñoo toog réunion des leaders Bougane la ici avec réserve pour les couleurs Ahmed ne ko si tu n'es pas d'accord vous prenez la porte. la phrase là Ahmed Aïdara a lui a dit si tu n'es pas d'accord. Ah, vous prenez la porte waaw mais Bougane ñu ko Ahmed Aïdara. ma ma rek. biñ toogee ci réunion bi siège taxawu Sénégal la woon Ahmed lu li baax du ko weddi il m'a dit bi ma koy man maa toog xam na fi ma ko waxee. mais Ahmed Aïdara mënul dàq. bu moom ci boppam Ahmed Aïdara ci boppam. moo ne ko si n'est pas d'accord vous prenez la porte. Bougane du génn parce que Bougane soo paree moom ay couleur la woon couleur ne couleur yi Pastef la ak ak ak kii xam couleur fu mu jógee xam nga dañu ne deux ñun on revendique le vert les socialistes ñu ne ñun on met Pastef a mis rouge muy vert rouge ñu ne Pastef la couleur la encore ab mais waaw mais pour en revenir Bougane en tout cas. incriminé wul Ahmed Aïdara. Euh, Khalifa Sall Khalifa Sall la incriminé et puis le comportement des leaders de boo ko xoolee ñoom ñëpp dañoo def bloc avec Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko et contre Khalifa. et ba fa da dégg ci ay déclaration mu mel ni. Khalifa da doon mettre ñenn ñi mal à l'aise à au, au niveau de de de de, de Yewwi Askan bi sentiment boobu ci lan lañ ko wéer ñoom. mais parce que simplement Ousmane yor lañ bëgg. parce que li Ousmane yor lañ bëgg Maïmouna Maïmouna dama lay. expliqué mais Ousmane yor du noonu lañ koy jëlee te mënuñu koo jël mais c'est-à-dire li Ousmane yor moo leen intéressé moo tax ma ne la sànq bu fekkee ñoom ils sont cohérents logique solidaire nañ taxaw ne bu Sonko dem duñ dem. ils ne le feront pas du tout parce que arrangé wu leen Khalifa bokk arrangé wu leen Karim bokk arrangé wu leen parce que dañuy obstruer voie bi mais bu ñu dégagé woon kay mu gën a mu gën a leer si ñoom parrainage gën a yomb.